jërë ngeen defat ci ànd ak télévision Futurs Médias dal leen ak jàmm ci xibaaru marax yi ponk ci gën a fës rek euh, parrainage citoyen bi nag euh, la ñu bëgg rek mooy ñu daal di koy euh, kon neenal ki ko bëgg nag di kuréel gi nga xamante ne nii moom mooy saytu wàllug wote yi bankaso ci mbootaayu réew yi tugal yi mi ngi ko xamle nag tey bi muy def rapport am bu mujj ñeel nag woteeg faluk njiitu réew mi woon ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru février kuréel googu di sàkku tamit kër gi di CNRA mu doon kër goo xamante ne nii dafay maandu tëddee njaaxaanaay beneen ponk ci biir xibaar yi euh, lu soxal nag fële ca wakaam ña ngay wéyal ba tey déguerpissement bi ngir nag féexal yoon ya maire ba ak i euh, agent ñoo ca ànd wàcc dinañu ci mbedd mi moom Samba Bathily Diallo ne nag dañoo taxaw temm rek ngir samp ay parking yoo xamante ni dañu cay fay bu weesoo loolu tamit placé ñu ne dañu koy pavé commerçant yi nag ña ngay wéy rek di naqarlu doxalinu maire bi tey laajit ndàmpaay euh, ñi nga xamante ne nag ñoom ñooy jaaykatu fëgg bëgg jaay ya nekk ca Colobane euh, coppite yi ñu indi nag ci tarif euh, douanier yi nag euh, jaaxal na leen laal na leen bu baax a baax ñoom ñooñee ñu ngi sàkku nag ñu wàññi tarif yi waaye gis nañu itam ne balu fëgg jaay cher na te boo mayul nag daañu ñàkk seen i client jamono jii ñuy wax ak yéen direction bu douane mi ngi janoo ak opérateur économique yi ci matuwaay boobee dinañ addu tamit ci ki nga xamante ne nag dëddu na àdduna ci anam yu metti mu nekkoon jiitu réew bu Égypte di bi muy janook uh, attekat ya uh, foofee ca Caire ki ko xam ne nag uh, di télévision bu Caire foofee di télévision d'état ba moom Mohamed Morsi boobee ci fàttali rek mi ngi ñëwoon ci nguur ga ci atum 2012 mu nekkoon nag koo xamante ne kon askanu Égypte ñoom ñoo ko faloon gannaaw nag bi nga xamante ne kookee di Hosni Moubarak daal nay woon nag jógee ca nguur gi mbokki ponk yaa ngi nii bu ngeen taaxiloo tuuti ñu faram fàccee xibaar yi dalee na jàmm ci xibaaru marax yi ñu doore ko rek ak parrainage citoyen bi nga xamante ne nag bu ñu sañoon daal euh, mu euh, jóge fii euh, kuréel gi nga xamante ne nag moom mooy saytu wàllug tey yi soo ci mbootaay réew yi tugal yi moom nag mooy sàkku lu ni mel kuréel googu nag doon def rek njàngatam bu mujj ñeel nag teg woteeg faluk njiitu réew mi amoon ñaar fukki fan nag ñeent ci weeru février kuréelu observateur yooyu ba tey li mu bëgg rek mooy kër gii di CNRA nag daal di tëddee njaaxaanaay doon kër goo xamante ni nii nag dafay mandu loolu dañ ci ànd ak Fatimata Touré Mardian ci seen rapport final bu élection présidentielle bu 24 février bi ñu génn mission observation bu union européenne daati jàpp ni rek élection yi jaar na ci yoon waaye nag ñoom ñu daati gis ni am na ay manquement jëm ci processus électoral bi lu ko mel ni sax parrainage bi ñu jàpp ni rek jaarul ci yoon loolu nag moo waral ñoom ñu bëgg rek élection locale yi nga xam ni moom lañu dëkk dëkkmal ñu daati koy supprimer. La réforme de mai a également introduit le parrainage. ay réforme yu 2018 ñu gis ni ah, lii di ah, parrainage citoyen dañ ko nar a dugalaat ci élection yi nga xam ni rek dañ ko dëkkmal jëm ci local yi loolu nag ñun dañoo jàpp ni rek doonul lu baax moo tax nag mission d'observation bu Union européenne jàpp ni lii di ah, parrainage citoyen dañ ko war a génnee ci élection locale yi nga xam ne moom la ñu dëkkmal ci lu yàggul dara. donc d'abandonner le parrainage citoyen pour les élections locales. ñu amaat beneen recommandation mooy képp ku bokk rek ci ay jongante élection électorale ñu daati lay bàyyi nga daati xool fichier électoral bi bokk na ci luy indi transparence la mission de l'Union européenne waaw ñu gis ni nag ci élection présidentielle yi 24 février yi nga xam ni génn nañ ci lii di fichier électorale bi dafa amoon ay problèmes yu bari xëccoo entre pouvoir ak opposition loolu nag dafa war a dañ dafa war a dakk moo tax nag ñuy ñaan képp ku nga xam ne rek war na am accès ci fichier bi ñu daat koy bàyyi xool transparence mission observation UE nag jàpp ni rek wax nañu xoolaat nan la ñuy tabbee ñi nga xam ni rek ñoo bokk ci boppu CNRA loole nag ngir daa ci garantir rek lépp lu nga xam ni dafay doon seen i activité mu gën a leer ci bopp population bi. les médias audiovisuels publics ont offert un espace égal lu jëm nag ci wàllum organes yi nga xam ne ñoom ñooy waa CNRA ak yooyu noonu gis nañ ni ñoom ubbi nañu seen i support li ko jëm ci campagne bi ngir képp ku nga xam ne rek dafa nekkoon candidat mu mun a daal di wax ay mbébétam waaye tamit gis nañu ni dafa am ay parti pris moo tax nag ñuy ñaan ñu xoolaat bu baax naka la ñuy daal di tabbee ñi nga xam ne ñoom ñooy membre CNRA boobu ngir lépp lu nga xam ne dafay nekk seen i activité di doon seen yëngu-yëngu mën bi yoon ñu daal di ñëw ngi daal di saytu lépp lu nga xam ni rek dafay jëm ci élection yi de ñoom nag ñu daal di jàpp ni rek bépp élection bi nga xam ni rek réewum Sénégal war na ko organiser waat dina jaar ci yoon ba nga xam ni rek benn njuuj njaaj du ci am ñu koy jaajëfal Fatimata Touré yegg rek ba commune bu Gandiol wax nag ci jafe-jafe yi nga xamante ni euh, baykat ya ña ngi koy jànkonteel foofu ndax nag euh, jiwu ju bon yoo xamante ni jot nañu ko loole sax tax na ba mbayum soble ma nag dafa tagga témbee foofee ndax lañu ñu ca ñàkk daal euh, ci campagne bi xayma nañu ko ci juróom benn téeméeri million ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñett mu doon loo xamante ne wax naa ko léegi dara yóbbeewu leen ko rek lu may nag jiwu ju bon yoo xamante ne ni jot nañu ko ci jamono ji nga xamante ne nag jamono ju metti la Aliou Ba moom moo wax ci tuuru baykat yooyu ma nga féetee fa ñu naan paluur ñu teewlu ko ak Ousseynou Diop Habib Seck. état état moo ñu yilif sunu antenne ak opérateur bi nga xamante ne mooy Tropicasem ndax yàq gi mu yàq sunu alal addina bi yëpp teg nañ ci bët mais ñun nekk ci ndigal ak bëgg a ci ndigal moo nu bay ci sunu takk bii ba léegi waaye du sunu ñàkk pexe du sunu ñàkk fu ñu mën a am dem métti na lool ñi nga xamante ne si ñooy ñooy ñooy ñooy ñooy euh, état bi seet si woon nañu ñëw fi xool constat def jël sunu oño bi yóbbu def ci euh, seen laboratoire boobu ba léegi tontooguñu ñëwuñu ñëwuñu newuñu nii la newuñu nii torpication bi nga xam ne moom la ñu sëkkal newuñu fii la newuñu fee la état nag ñoo ngi am ci yow yaakaar ni ñu amoon ci yaakaar boobu ba léegi sunu enter ak tropicasim tropicasim rëy nanu dundatunu dundum wér yàlla ñuy dund te loolu mënta wéy tropicasim mëntul wéy di di di di continuer ci ay milliards am ñun ñuy dee ndóol. 678 millions yoo xamante ne yii yu ñu yu ñu yu ñu dépassé woon yàqu na naaw na fës amatuñu fu ñu taxaw nawet baa ngi ñëw sunu xale yi mënu seen njàng yàqu na sunu jur yi ñoo ngi dee amuñu lu leen compter amuñu dara loo xamante ni tamit mën nañu ko taxawee te loolu du wallu gor état bi na ci taxaw intervenir ñu wax mbir mi ñu àddu rek euh, ci leneen muy nag sargal gi nga xamante ne sargal nañu ko ñaari ndongo yu ñu ràññee lool euh, ci wàllug mathématique ak science muy Miss Math ak Miss Science ñooñu nag ñu gën leen a xam ci Fatimata Diop ak ki nga xamante ne rek moom mooy Sarata Diop jot nañu nag kon euh, raaya yooyu kenn ki nag mu ngi nekk Miss Science kenn ki Miss Mathématique xew-xew boobu ñu def ko ci teewaayu jëwriñ ji nga xamante ne moom la ñu dénk wàllu njàng mi ak njàngale mi concours bi nag ñu di ko def at mu ne jëwriñ jooju nag di sàkku daal jigéen ñu ni def seen kéemtalaay kàttan bay dugg nag ci série scientifique yi ndax yu am solo la Maguette Soirée Diallo lañu ci àndal Fatoumata Diop ak Sarata Diop ñoom ñaar ñooy ñaari reine yu bees bu science ak mathématique bu édition 2019 science léegi am place bu am solo ci njàng meeg njàngale mi fii ci Sénégal. ay action yu mel nii ñooy tax nañu ñu mën a inciter jeunes yi ak entreprise yi parce que xam nga sooy formé. sooy former sooy def éducation loo mënti def te àndoo si économie Sénégal doo dem donc euh, comme léegi ñu ñëpp on est tourné vers les sciences et les techniques ñun entrepreneurs yi chercheurs yi directeurs yi je crois que ak parents d'élèves yi noonu la ñu war a def pour que xale yi xam ne que science ak mathématique day mel ni rek yeneen matières yi donc il suffit que d'ailleurs je crois que def na intervention bu am solo mooy ki waxoon léegi vaut mieux que nga bañ a éviter mathématique boo mee da ngay dem si mathématiques yi mooy gën a yomb donc di leen wax ne rek toujours quoi qu'on est la bonne voie on est bien lancé lycée yu technique yi am na lycée scientifique yi am na ñu ngi sax si proposition boo xam ne ay li nekk la ñu nar a def mooy le lycée yoo xam ne accès à tout le monde Aminata Diop Sall mooy marraine juróom-ñetteelu édition bi moom mbégte rek la am ci importance bi jigéen ñi indi ci filière scientifique yi maa ngi leen di jëkk di leen sargal pour li ñu li ñu def ndax ñoom ñëpp ay miss euh, science ak miss mathématique nanu loolu mooy wane ni dañu euh, dañu dañu xarañ ci jàng jàng boobu jàng scientifique boobu ñu xarañ nañ ci te léegi ñun am nañu vraiment yaakaar ci ñoom ni su ëllëgee dina dinañu fi nekk ay chercheuses dinañ fi nekk ay ingénieurs dinañu mën a sax dawal roplaan concours Miss Math Miss Science ñor nañu bëri at mii nag lauréats yi ñëw nañu ci fukk ak ñeent region bu Sénégal mu nekk ab concours boo xam ne dafay dindi rekk li ñuy foogoon ni mathématique ak science jigéen ñi mënuñu ko jàng ñu àddu ci wér-gu-yaram ak ay eh, chirurgien pédiatre yoo xamante ne nag fekk nañu baax rek ci Afrique saw jant boole nañu leen eh, ci ab ndaje fii ci Ndakaaru ngir tàggat leen nag eh, ci yenn jàngoro yi nga xamante ni mën naa laal tout tànk yi jàngoro yooyu bokk na ci jàngoro yu fois tàggatu gi nag solo si rek mooy fexe rek ba ñu gën a xarañ ci jàngoro yooyu hôpital national Albert Royer di centre boobu nag moo ci lëkkaloo ak chain de l'espoir ba fekk baax ca tugal Maymuna Njaay lañ ci àndal jareetu Fall ak Thierno Laurent Mendy ci salle bi ñëpp di bàyyi xel li professeur bii di wax mu yokk seen xam-xam ci lu bari loo xam ni tout tànk yi léeg-léeg dañ koy jànkoonteel mu laaj opéré. dinañu gis ay euh, malade yi nga xam ni ñoom euh, feebar bi ñu am moom mooy seen euh, maanaam cër yi seen cër yi ñoom ñoo am maanaam dafa dëng mooy cër yu dëng maanaam yaxu pooj bi ak yaxu tànk bi. donc yooyu la ñuy kii beneen bi ci topp tamit mooy feebar bi nga xam ne day jàpp rees day jàpp ak tamit euh, yoon yi nga xam ni ñoom ñooy indi wextaan boobu di jóge ci res fi mu toll nii euh, juróom-ñetti tuut tànk war nañ leen a opérer mission bi ñu duppee chaine de l' espoir nee na bugg fee yam. nous voyons les malades en consultation. bile lël dafa war a nekk loo xamante ni si dafay indi weccoo xalaat ni ngeen koy gisee nii li fi nekk toll na ci ñeent fukk étudiants yoo xamante ni si dañuy joxe seen i xalaat di waxtaan am ñoo xamante ni tamit dañuy fësal seen i jafe-jafe ñun nag gannaaw loolu nag ci la ñuy jéem rek indi ay saafara ci yooyu la jafe-jafe. et puis on s'adapte. fii ci Sénégal seetlu bi mooy xale yi nga xam ni seen cër demee na noonu. léeg-léeg sàggante dafay am ci seeni waajur. loolu mbiru aadala ndax euh, dama-dama bu amee fii ci dëkk bi lu ñuy njëkk xalaat moom mooy yóbbu ko ci moccukat bi ndax booy seet moom loolu moo gën a njëg li moo gën a yomb. Euh, on a constaté qu'il y avait un enfant qui avait beaucoup. Euh... jot nañu gis benn xale boo xamante ni sii dafa amoon jafe-jafe ngir dox ci nu mu waree li ko waral moo di fajum cosaan bi ndax ki ko doon faj ci boobale anam defeewul yëf fi ni mu waree kon nag dafa jot sëkk ñu daal di dakkal seeni liggéey ndax lu ci bari ci ay jafe-jafe ñoom ñoo ko indi ci loolu yi tamit faw rek ñu xamal njaboot yi ni ñun ñii di yëngu ci structure sanitaire yi dañu fi nekk ngir lu leen di dimbali. ou vers un pédiatre ou vers un chirurgien. Euh, penco bi dinañ ko wéyal ba ci ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru join bu ko defee réew yu mel ni Bénin Togo ak Côte bokk ci waxtaan bi ku ne wax li la yitteel ñu saafara ko bu mënee nekk. Euh, cant ak ngërëm ñeel na la may a Ndiaye euh, ñu àddu ci mbootaay gi nga xamante ni moom la ñu duppee euh, Ecolibri mu lëkkaloo nag ak village pilote UCG mi toppatoo mbalit mi ak jëwriñ ji nga xamante ni moom la ñu dénk wàllug cet ñu amal nag tey ji njëmbatu garab goo xamante ne def nañu ko rek kon ci corniche bi liñ ci jublu nag moom mooy xeex coppiteg jaww ji loolu nag yemoo rek ak bëccëg bi nga xamante ne jagleel nañ ko lépp lu soxal wàllug désertification dindi lépp loo xamante ne nag dafay salteel alam gi Thierno Laurent Mendy. ñu nekk ñu ngi woy di tàccu ci seen wet nag ñu jël suuf am ay peel am sax ay garab yoo xamante ne war nañ ko saxal ci corniche bi ñu nax ko nag taaral rafetal ko mu mel ne nag action citoyenne la ñuy taxawal ñaax itam communauté bi la dañu def initiative au reboisement aux corniches sur 7 ak 3000 plantes grasses 7000 plantes grasses pardon ak 500 arbres pour def pour diminuer effet wu pollution et effet wu ensablement wu suñu capital. mu mel ni nag nit ñi ñëpp ñu ngi si nar a taxaw def si seen loxo ndaw ñi nga xamante ne ñoo nekk village pilote ñoom tamit impliqué wu si. maanaam suñu jëlee affaire gàncax bi ah aal bi mais nii lañ ko fekkee kon dañ ñun su fekkee ni yokkuñ ko mu gën a rafet waruñ cee dindi dara waruñ koo yàq xale nag ñu yar leen ci ñoo xam luy garab. xam tamit nag li ñuy wax que ni ndax mënu ma ko wax sax si si ci ci ci wolof wante daal mooy euh, le geste éco éco citoyen autorité yi di leen gunge. ne ku ne fa nga dëkk moo xam yow la moo xam man la nga xool la fa manqué ci garab nga def ko nga xool la fa manqué ci set nga def ko ndaxte état mënul def lépp bu defee it te situation te citoyens yi toppuñu ko di ko toppatoo. du am am suivi. ba tax na nag ñu war a xam ne benn garab bu ñu saxal bu nekk dina bokk ci li nga xamante ne mooy xeex liy gàllankoor alam gi kon nag na ñëpp jublu ci mbir mi. ñu des rek ci bëccëg gi nga xamante nag moom la ñu jagleel kon aar alam googe bañ a dagg garab yi tamit euh, ci la bokk ndax bokk na ci li aar euh, alam gi ñu ne sax booy xool bu baax a baax nag daggub garab yi euh, wàññiku na ak code révisé bi waaye tamit li nga xamante ne rek kon dana ko daal di criminaliser mu jëm nag ci daggub garab yi ci àll bi ñu teewlu Matar John moom nag chef secteur service la eaux et forêt ak ay satu pay coow li bëri woon nii coow parce que quand même egg nañu foo xam ne nit ñaa ngi comprendre te état ngi jël responsabilité et aussi ñu ngi waxtaan ak pays frontal yi nga xam ne aussi c'est des pays yoo xam ne fa la nit ñi di jaarale bant bi parce que aussi loolu la Sénégal consommé wul bant bi bant bi dañ koy génnee yàlla baax na ñu ngi waxtaan chef d'état yaa ngi waxtaan direction yaa ngi waxtaan ministère yaa ngi waxtaan pour mën a trouver consensus pour que bant wu Sénégal ñu bañ ko génne waxoon nañ ko sànq ci ponk euh, xibaar yi muy nag coppite yi nga xamante ni indi nañu ko euh, ci tarif euh, douanier yi bu ñu ko déggee nag muy njëg yi moo xam nag conteneur yuy wàcceek yooyu lañu ca war a nag fay moo loo xamante ni soppi nañu ko ci loole nag bari na ñu mu laal bokk na rek ci jaaykatu fëgg jaaye nekk ca ñoom jaaykat yooyu nag nee nañu nañu wàññi tarif yi ndax boo xoolee balu fëgg jaay yi cher na te nag daañu dem ba ñàkk seeni i client dañu ci ànd ak Aïssata Gueye ba Aïssata Ndeye Thiaba Ali Ba jaaxle la ñu gis ci xar kanamu jaaykatu fëgg jaay bile di Mamadou Diouf ca marché Colobane ginnaaw bi fi ab correction ci tarif douanière yi jàllee. buñ yokkee rek lépp ay yokku kiy jënd conteneur bi day yokk kiy jaay bal bi day yokk kiy jaayaat euh, morceau détaillé day yokk te loolu lépp xam nga coono la te loolu baaxul ci réew. commerçant yi nag di ñaan état bi xoolaat.

di ñawlu ab doxalin bu bees bu soldat économie yi tëral jëmale ko ci tarif douanière yi le ma ngoog jamono ji ñuy wax ak yéen sax euh, direction bu douane nag euh, mi ngi janoo rek ak euh, opérateur économique yi nag waa douane di leeral rek ci loole ñu ne nag danu ko yokk muy tarif yi nee nañ bu ñu ko xoolee dëgg sax du ab yokk waaye nag jubbanti la ñu indi ndax boo xooloon nag bu njëkk la ñu daan perte ñoom waa douane dafa bari lool dinañ ci dellusiwaat waxoon nañ ko tamit muy déguerpissement bi fexe rek ba mbedd wakaam yi féex mairie ba ak i agent nag ña wéy rek kon opération boobu di wàcc rek ci terrain bi la mu xamle nag moom maire ba moo di ne dañuy samp ay parking yoo xamante ne dañuy fay place ya dañu koy rek pavé commercant yi nag ne du ko dégg ndax ndàmpaay la ñuy laaj te maire ba sax na muy doxalee daf leen a leexul daf leen a neexul Pape Fara Ñing ayu bés gannaaw ba nga xam ne ñëw nañ daal di dajje cantine yi nekk fii ci marché américain bu Wakaam ndaraan bi dellusiwaat na ci bërëb moo nekk dem beeg dikk bi gën leer. dajjiwuñu dañuy jëlaat suñuy mbedd jëlaat say mbedd mooy li nga xam ne ñëpp ñoo ko bokk muy mbedd mi ku bëgg a jàll jàll ku war a stationné nga stationné kenn du dox ci tali bi ñu jëlaat mbedd yi delloowaat ko askan bi. loolu la ñuy def ñu ko ci tali américain bi yëpp ci Wakaam yëpp la defe naa ne le trois lañ commencé woon et ba tey ñu ngi si. ñu triste jaaxle commerçant yi daal di toog di janoog li nu mel. ñuy ñaawlu bu baax a baax ni maire bi doxalee. ah délai bi avant mu ñëw sax du dugal nañu bagage yëpp ci biir mais bi mu ñëwee dañoo bett yàq suñu bagage yàq bu métti ñu koy ñaawlu trop. Euh, maire bi fi nekkoon Thiendoo Thiendoo yi moo ñu ko jaayoon 400000. man jàpp naa ne état continuité la war a nekk parce que bu fekkee ne ancien maire dafa liggéey beneen maire ñoo ne li mu fi liggéey baaxul ngir combat politique ñuy sacrifier néew ci doole ji. kooku Sénégal du mos a jëm kanam. nit ñi jëlee daal ñaaw na trop. waaw xaalis bu baree bëri fii kenn bu nekk daanaka mën na 5 millions wala 6 millions. ngir nag fexe bu bërëb bi kenn dootu fi lalati maire bi ne ay projet yu mag la ñuy def ci bërëb bii. lu ma mën a wax ci loolu mooy maire yi mosul jaay fii parce que maire yi bu jaayee day am kayit goo xam ne maire yi moo la ko jox wane ne moom moo la ko jaay xaalis bi ñu jël ko versé ko ci compte commune bi au niveau du trésor fii ñu daj yi nii dañ koy def ay parking ñii di ñëw jënd ci marché bi bu ñëwee ñu mën a stationné fii parking payant aussi lay doon parce que bu du lool anarchie lay doon ku ñëw nga kii fii benn côté bi dañ koy def foo nga xamante ne parking de déchargement lay doon. maire bi ak équipe am li nga xam ne moom la ñu tàmbali di dajji nag cantine yi nekk ci mbedd yi ne dinañ ko wéyal fexe ba commune bi am xar kanam bu rafet. ñu àddu nag euh, ci ajuk euh, mag gi ñuy euh, waajal ki nga xamante ne nag moom mooy jiite délégation général bala ca ca màkkatal mukaram nag am ay kàddu yoo xamante ne yëkkati na ko muy matuwaay ñu jël Abdou Aziz Kébé ne daañu def seen kéemtalaay kàttan ba ujaa ji nag bañ a jànkonteel benn jafe ca dëkk bu sell boobee waaye nag yenn ujaa ji li ñu nekkee nag mooy ŋàññi goo xamante ne amul àpp fële ca mun na ak Arafat loolee nag nañu fexe rek ba xeex ko bu baax a baax mi ngi doon amal ab nemmeeku ca diwaanu Thiès Cheikh Anta Diop Sey Latira mbooloo mu takku ci saal bu fees dell ñii di ay ujaaj fas yéene dem fële ci màkk ak agence yi nga xamante ñoom ñoo yóbbu ujaaj yi nekk ci diwaanu Thiès daje woon doon sottante xalaat ak laaj ak tontu jëmale ko ci ki nga xamante ne moom moo jiite délégation générale bu pèlerinage bi am na ay yóbbal yu mu jox ñii di ujaaj yi voyage si mat nañu ñaari téeméer ak juróom ñett fukk ak juróom ak juróom benn fukki àllaaji ak ajaratu ñi nga xam ne ñoo ñuy jàppale ñoom El Hadj ci aj gi ñoom ñooy yóbbu fukki junni yu teg junni muy onze mille li ci des délégation bi moo koy yóbbu loolu yi tamit bëgg-bëggu kilifa gi la le président de la république waxanteeg ñoom li nga xam ne moom la mu yaakaar ne bu ñu ko waxanteeg ñoom seen aj dana gën baax bu ñu teg alaaji bi coono boo xam ne mën na ñàkk l'image du Sénégal maanaam mu nekk way wu rafet Abdou Aziz Kébé yokk ci na ren ji de ñaax nañ bu baax pèlerin yi ñu topp digal yi nga xamante ne moom lañ leen di jox at yi passé doo dégg ñu ne la avion bi doo dégg ñu ne la lekk gi Madina wala Makka doo dégg ñu ne la non bu ñu ñëwee mun naa rek la ñuy commencé di wax lekk gi neexul lekk gi doyul lekk gi ñëwul à temps ma bëggoon aussi ñuy communiquer dans la vérité lekk gi mënta doy waaw ah, mun naa kuy dem pour retraite spirituelle da ngay lekk li jariñ sa doole. Mhm. mais du da ngay lekk li nga xam ne moom la sa bakkan bëgg. lekk heure bi nga bëgg a lekk aussi. ku nekk ci tarbiya amun ah, mun naa nous sommes dans un régiment. alaaji bi tamit du dafa nekk de mauvaise foi dafa xamul rek. ginnaaw Thiès délégation général au pèlerinage dem nañu Tivaouane ak piir fas yéene koo jeexale Touba ak Kaolack. mangook euh, ñu wax rek ci xibaar yu bitim réew yi ci euh, tënk fële nag euh, ca Gàmbi leer na naññi njiitu réew ma di Adama Barrow nag nee na juróomi at la fay toog ni ko ko chart réew ma santé loole nag la xamle ci ab meeting boo xamante ne mi ngi ko doon amal fa ñu naan nag Brikana loole ci njeexitalu ay bis bi la woon xibaaru bitim réew yi ba tey daal dinay nag dëddu àdduna moom mi nekkoon njiitum réew bu Égypte di Mohamed Morsi moom moome nag faatu na ci jano bi nga xamante ni mi ngi kat euh, gannaaw nag euh, at yi nga xamante ne cha daan yi nga xamante ne daan woon na euh, ci ndoddam moom moomee di Mohamed Morsi ci fàttali ci atum 2012 nag ci la nekkoon njiitu réew bu Égypte gannaaw ba nga xamante ne nag ka fa toogoon di mu Moubarak dafa daal di kon jóge ca nguur ga moom moomu sax daanaka booy xool daan yi tegu ci ndoddam bari na am na ci boo xamante ne ñaar fukki atu kaso la ñu ko tëjoon ndax ndigal lu ñu ne joxewoon na ko ngir nag ñu faat ay manifestants ci atum beneen daan bi nag giirub dund dundam la ndax espionnage la ñu wax rek euh, ci réewum euh, Qatar ñu àddu ci tàggat yaram taekwondo ak fédération sénégalaise bu taekwondo nag daal di rek euh, door ab projet euh, projet bi naka li ci jublu rek moom mooy tàggat ay ndaw yu yëngu euh, ci discipline boobee ngir nag waajal Jeux olympiques de la jeunesse yi nga xamante ne war na am fii ci Ndakaaru ci atum 2022 lu tollu ci téeméer ak ñaar fukk ci ay taekwondistes nag ñoom la ñu daal di rek boole ngir tàggat leen seen at tollu ci fukk ak ñaar jàpp fukk ak ñett Cheikh bu Diarra ngir Jeux olympiques yi ñu jagleel gone yi fii ci dakaar atum 2022 taekwondo bu Sénégal tàmbali na wàccaayam fédération bi jëlagum na téeméer yi nga xam ni fa la ñuy tànnee ñi nar a teewali Sénégal. après xale yi ñu détecté xale yi ñi nga xamante ni euh, saytu nañ leen ci compétition yi dañu doon xaar rek euh, ba sélection bi jeex tey pour ñu mën a lancer cérémonie bi. yàlla def na ne cérémonie bi tey euh, jaar na si yoon mais loolu boo ko gisee c'est pour montrer que taekwondo na moom joxe na départ bi pour les Jeux olympiques de ak xale yi noonu donc looloo tax tey ñu def cérémonie bi bi pour présenter parents yi tamit projet yi présenter ko tamit ñi nga xamante ñoo jógee ci yeneen région yi ak yeneen ligue pour wan leen leen mooy programme bi fii la ñu jaar ba mën a yegg ci Jeux olympiques ba mën ci am ay médailles. taekwondo si kade yi xëyun rek tànn Par conséquent, euh, ils sont âgés actuellement entre 12 et 13 ans. Et euh, après ça, maintenant, on a euh, lancé des compétitions qui visent uniquement à ces catégories, c'est-à-dire les catégories cadets, qu'on a vraiment lancées et qui ont fait après des compétitions qu'on a eu des sélections. ak seen projet bii ñu dippee JTKD jublu ci formation ak perfectionnement gone yi yëngu ci taekwondo fédération bi am na fii ñetti at ngir génne ay champion ëllëg dooree ko ci Dakar 2022. nangook ci xibaar boobu la ñuy ndar keppi eh, xibaar yi ci marax mbokk yi fii la ñuy tàggatoo yéen sant leen eh, gërëm leen yéen ñi farewoon ci machine bi ñu jàpp ci xibaar yi ba mu sotti 20h Chérif dina fi teew ngir jukki leen xibaar yi ci nasaraan jaa ngeen jëf.